asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu mbokki Sénégal mbokk yu ñuy mbokki jullit yi ñuy seetaan si adduna bi yëpp ñoo ngi fii nag euh, teewal leen si euh, guddig laylatul xadar bi nga xam ne nii at mu jot association Moutahabina Fillahi da koy organiser fii si Paris association boobu nag mi ngi nekk si arrondissement tey nag guddi gi moom programme bi am na solo lool bu sobee borom bi dana leen fi teewal fii ba ak yéen ba ba set jàngu kaamil Euh, mi ngi commencé na da ngeen gis aussi nag waa euh, association bi membre yi ku ne dina ñëw aussi euh, def benn témoignage ak wax lu xalaat si guddi gi ak seen liggéey bi nga xam ne ñu ngi koy def si Zawiya El Hadj Malick entre autres ak si gën lu gën a jiimal kanam le diine l'islam guddi gi tamit am na ay conférence gàmm gi à partir de minuit lay commencé ñëw News nag moo leen fi teewal bu soobee borom bi te lépp lu fi am rek da ngeen ko fi xam incha allah rabbi bon rek ñu door a dugg si liggéey bi. di len wax bon gamu ak bon guddi laylu xadar lépp luñ fi ñaan aussi yalla nako yàlla nangu ci daraja yi muhammad rasulullah sallallahu alayhi wasallam te jullit yeeg adduna bi yëpp bokk ko yàlla nañ tàmbali liggéey bi si bismillahi rahim pare ko si alhamdulillahi rabbil alamin bon ñu def nonu rek inshallah rabbi dana len indi l'événement bi lépp lu fi xaw fi boba sat inshallah rabbi jërë ngeen jëf ibrahim khadi ndjay mo len fi tewal fi ci si Paris اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق القاتم لما سبق نازل قبلاقه والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدري ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق القاتل لما سبق نازل قبلقي والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتم لما سبق نازل قبلقي إلى صراطك المستقيم وعلى ال حق قدري ومقدار العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتم لما سبق ال حق قدري ومقدار العظيم اللهم صل على سيدنا محمد فاتي لما اللهم صل على سيدنا محمد فاتي لما أغلق القاتل لما سبق نفسه والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى ال حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد فاتي لما أغلق القاتل لما سبق نزل علي حق قدري ومتعلي الأزلق القاتل بما سبق نازل أقبلاقي والهادي إلى صراطك المستقيم والهادي آلي حق قدري ومتعلي asalaamualeykum uh, man la Mbaye Mboup uh, bokk ci uh, bureau Moutahabina fi la Paris 13e précisément man maay trésorier bi dañuy dellusi si rek di sant ñëpp di gërëm ñëpp di njëkkee ci Ibra mi xam ne si moom moo jiite IK News yéwénal mbir mi lool bañ mën koo tas ci internet ah, di gërëm daayira tijaan yi nekk Paris yëpp sans exception di gërëm waa kër Serigne Touba yi fi ne ak seen taxawaay di gërëm ñëpp vraiment taxawaay yi rafet na ah, bis bi li sëñ Mansour daan wax ah, dafa ala dawme bii laylatul xadr moom dafa ala dawme yi fi jaar yëpp wax dëgg yàlla amoon nañ ci satisfaction mais bii moom ah, franchement tout s'est très bien passé euh, ba commencé ci organisation bi euh, ba ci conférencier bi ba pare cerise sur le gâteau euh, consul bi déplacé wu ba fi, fekk lépp di ñu woon rek ak wayefam ak disponibilité am wax deug yalla ñi ngi wax ñëpp ba déwén ah, yalla ñu may ñun ñëpp ñun ñëpp fekke Euh, bañ man koo def euh, ni ñu ko daan defee. Loxo appel bi ñuy lancé euh, euh, mbokki taalibe yi euh, ci mbiru zawiya bi Mm, rappel dong lay doon mooy ba ñu ko commencé mébét ba léegi li ñu daan wax mooy taalibe yëpp dañoo war a daje euh, booloo comme une seule personne di yëkkatee ndoo di doorandoo ndax zawiya bi moom lu ñu fi war a am la maanaam créer espace boo xam ne si euh, mbokki taalibe yëpp dañ fay retrouver wu euh, ñi fi yor seen njaboot ku jóge Sénégal ñëw fi maanaam euh, euh, bu ko defee nit ku nekk da fi mën a retrouver wu euh, na nga mën a dundee sa diine ca Sénégal nga mën koo dundee fii ci Paris ndax en principe man li ma mas a gëm mooy nit ki fu mu dem bu dee taalibe Cheikh lan la war a jëkk a lijjanti fan la zawiya ba ne fan lay liggéeyee ndax euh, liggéey moo ñu fi indi waaye tamit dafa am principe yoo xam si euh, c'est des principes fondamentaux ci euh, tarixa cheikh mooy sàmm sunu zawiya créer espace boo xam ne si fa la ñuy retrouver wu di doxal suñu diine bref loolu toujours moom la ñuy rappeler ci zawiya bi motax événement buñu am am euh, dañ ci profito pour gën relancer nit ñi parce que mbir la mo xamni ci si ba mu waree taxaw yag na te fim tollu ni ni ni ni nii wara def les bouchées doubles euh, pour mu taxaw lool dal la amone lumay wax ci mbirum zawiya bi euh, te té mom lañuy rappeler à chaque fois buñu dajé Kawsara dundal ñu Kawsara ëllëg ca Kawsara dundal ñu Kawsara ëllëg ca Kawsara loxo ci kaw dundal ñu Kawsara ëllëg ca Kawsara dundal ñu Kawsara sima bu naane wërga yogi bu naane wërga mafoy bu naane wërga yogi bu naane wërga sima bu naane wërga ca kaw bu ñu saagal ay bu ñu saagal leen yaa ngi bu ñu saagal ku ko def sóora dem bada bu ñu saagal ku ko def bay asil bada bu ñu saagal ku ko def bay jamil bada bu ñu saagal nit yu yàlla akum sa daa bokku sëf rëy kaala bari xam-xam taxulaa mel ni sëy di bay bu ñu saagal شريك له بري خلقه تقول لها بين سيدي بيقول عندندو عندندو عندندو عندندو عندندو شقلو بسوندو يلا يلا سيدي بيسيلي لترى يلا يلا دولي سكر حدا ندي يا dana jubóo مالك جاكو اي مولى مالك جاكو وتذكر له المدن نبات برفعل بدرب التنغاي جوجو بايو بابكر مجي عبد منصور حبيب Alaaji Maalik Maodo day topp di topp loo day jàngat di jàng loo Seydil Alaaji Maalik tey mooy toog di moytu loo Maodo nii nga nekkee woon musul ñu nax mam Maodo yaay suñu njiit ma woo ci ñun lu tax ñu tiit Maodo doo nañ mukk nit di ci ñun suba wa amirin نزار الماء nee na rasulilaay bi mu jutoo kaaba gi dafa jekki-jekki ne jàng-jàng daanoo génn ba ci ndey jaam ñu ne ko bindal mu ne talzalzalat ustuwanatul topp naa rasulilaay bi balaa xam naa kañ la baayam génn àdduna ñu bi nu ma amee ñaari weer ci biir yaayam kañ la ni d' xam naa rasulilaay كلم أم تكلم عدنا بين تستمع بايف نلو كلم أودو من عام الثماني وفات الجد زاهن من وحاتم وعن الشر الشروان ذي الكرم به غدا لجناب العم عبد مناف من وصية جد ثم من وصية جد مشفق مشفق رحيم على جمال رسول الله خمنا كان دف ريو يا زنيو كان من ما فكاتك نار فلا جمال من بصرة فبصرة لك من غش الشام كان عندنا من أبا طالب يلك من المن في حبي عمه قد راح معه إلى شام لأن بلغ بصرة ذوي عظيمي على جمال خمنا كان دلو الشام يلك كان دلو من ما نار فكات جروب كان عندنا من بقى عندنا وخ مجرد يلا جمالي نلا وعام خمسين وعشرين الرجوع إلى سامن وميسرة في خدمة الكرم الله يمال يتوبنا رسول الله بخمنا كان مدنش سخنا نينا كان مدنش سخنا من نعرف كاتا جروم يوي بيم تغي دوما فكي فلا جروم جلا دنش كدو بخديجة نينا كبنال من وبعد شهرين في ذا العام ثم تخمسة وعشرين يوم تنا متوابي خديجة ضمها بجزل حائزة حياتها غيرها المختار لم يكن الله يمال يتوبنا رسول الله بما قد يفرج مريت من ورا نح ديتنا خجر جنا واو نح العام من ديال نينا كبنال من خديجة فهي الأولى التي سبقت ثم تها قبل qablu faqat kullu muxtarami alaaji maa topp naa rasulillahi ba xam naa ñaata doom la am xarijatu ñu ne ko ñaata la ñu amoon mu ne juróom-benn ñaar juróom-benn doom la ñu amoon ñaata doom la rasulillahi am mu ne juróom-ñaar ñu ne ko am Maodo kon kenn kenn moo ko jur mu ne Mariyatul Qibtiyya moo ko jur alaaji Malik nee na xam naa ñaata doom la rasulillahi am ñu ne ko ñaata mu ne jëpp juróom-ñaar la woon wa xawat alaaduhu bi ittifaaqi sittatun wa alal asaxi zaayun فقدم قاسما به وكنية المصطفى بالقاسم اجتارت قد عاش عاما يبقى خلف لا تجري الذي ما يتبدا رسول الله ما قد يفعل جمال وراء خمنا كان ندوكو معك كان نمر من بس عالتنا كان ندوكو من يتمنى وراء من بس عالتنا ينك بس عالتنا الذي ما بينا خمنا كان ندوكو ينك بندل من في حبه عبه قد راع معه الى الشام لان بلغ ابو سعيد العزمي في حبه عبه asalaamualeykum wa rahmatullah taala wa barakaatuhu ginnaaw bu ñu sante yàlla ñu ngi julli ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam maa ngi tudd Ousmane Badji bokk ci daayira Moutahabina Fillahi bu Paris 13e damay ñëw appuyer suñu trésorier lu mu wax di ko gërëm moom dañ ko moom suñu trésorier la mais tout terrain la sincèrement mooy suñu lëpp suñu trésorier la mais moom moom mooy suñu mooy mooy suñu gët ku am Pastef la moo ngi trésorier moo ngi fii moo ngi fii moom rôle yëpp polyvalent la quoi sincèrement di ko gërëm di gërëm tam oustaz euh, Diagne euh, mbay bi wax fii léegi nii mooy suñu trésorier di ko gërëm di wax ni daayira bi bu mu taxawee munul ndaw parce que daayira bi bu mu bu ñu taxawalee daayira bi ne dañoo bëgg a daayira bu mu taxa bi na filaahi fii <clears throat> joxuñu ko suñu bopp dañoo indi initiative biñ ko indee sëñ Cheikh ñëwoon fii sëñ Cheikh bu sëñ Mansour si borom daara ji bi mu fi ñëwee ñu wax ko daayira bi mu ne ma xaar mu ne xaar leen mu woo papaam direct Mouhamadou Mansour si borom daara ji ba mu ko woowee direct mu ne ko euh, ah xale yi de nee dañoo bëgg daayira rek sëñ Mansour moo joxe turu daayira bi nee na tuddee naa ko mu Moutahabina Fillahi Paris 13e sëñ Mansour mii ñu ngi koy gërëm yal na yàlla dolli leeram te taas ñu si barkeem di woote di lancer appel bi ni tijaani nañu génn. Paris du mu taxa bi na filaahi rek moo fi nekk tijaan yi nañu génn moo taxi comme ñu ngi yokk sant yàlla di julli ci yonente bi di lancé waat appel bi gars yi génn leen ñu jàpp ci daayira bi nit amul dara lu dul sa daayira ak fi nga weeru comme sëñ Babacar na ko nee na ko amul wéeruwaay da ngay neex a bëma comme soo amee wéeruwaay mu ne def leen nii comme yaakaar naa ni kooku war na tax nga am Pastef lii daal laa am lu ma doon lancé appel bi di leen gërëm IKEA News sincèrement kontaan nañu bi mooy suñu 9e édition ñu leen di doog a jël mais yaakaar naa ni e ak onzième ak bu ñu demee ba vingtième incha allah yàlla nañu yàlla dolli gudd fan ak wër dolli ñu sutura yéen daal la ñuy fas yéene ànd ak yéen saay programme bu neex ci barke yonente bi sallallahu alayhi wa sallam allahuma salli ala sayidina muhammadin alfatih lima ughliqa alqatim lima sabaqa nasira qiblaqi والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آل حق قدري ومقدار العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتل لما سبق نازل قبل والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آل حق قدره ومقدار اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق القاتم لما سبق نزل قبلقي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدري ومقدار العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق القاتم لما سبق آله حق قدري ومقدار العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق القاتل لما سبق نفسه والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آل حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق القاتل لما سبق نزل آله حق قدره ومقداره العظيم قال القاتل لما سبق نزل أخلاقه والهادي الى صراطك المستقيم وعلى الي قدري وما سنت الحاج مبوج داما كو فاتي ما شاء الله مو موي نونو الحاج مبوج موي بريزيدان ا لورغانيزاسيون الحاج مبوج ما شاء الله موميت ليپ لو ci organisation moom la ak équipe bi mu àndal ñoom mbay l'équipe ñoom Pape Diène ñoom Damboj maa ngi ak ñoom Ousmane Mbodj maa ngi gërëm ñëpp ñu nekkoon ci waañ bi ma jëy vice président lu fi baax rek ñoom ñoo ko baaxal comprendre nga di ñaan yàlla yàlla na leen yàlla dolli sutura yàlla na yàlla dolli ñu yiir malaanu sutura abadan daa iman di jaahi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam yàlla na leen yàlla jàppale yéen it yàlla yokk seen liggéey li waa ji waxoon sëñ Abdou Aziz Al Amin nee na jërëjëf ku deful dara doo ko dégg ngeen jëf si borom daara ji sama sëriñ nee na ku bëgg dara te dara ju daralu la dara doo am ca daraja dara comme yéen daal daraja jaral na leen dara mënoon ngeen ñëw laaj ñu ay millions d'euros mais defu leen ko dangeen ñëw rek ne ñu bëgg ngeen ànd ak ñun ci guddi gu gën 83 nii yàlla na leen yàlla jàppale yokk seen liggéey ci barke Seydi Hadji Malick ci barke Cheikh Ahmad Tidiane Chérif radiallahu taala anhu ci barke borom bunt bi sang-sang yi muy Seydina Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam salaamaaleykum wa rahmatullah lu waaye ndax ñaan taw waame la lu ci waay yéene rek dina ci sax lu ci waay mu sax kon nag al ustaas bismillah jërë ngeen jëf ñu ngi sant ndax fi njàngkat yi daaneele fa nazmi hifdhuhu xawdu sujuuni sidi haji malik moko wax ci nuuniyu nee na mokkal ko faju aajo la comme xawsu suluuni ngeen la nak fi la tëni yi wasa faju aajo ci ngeen yemale jangi lolou ci li wax tafaul gaaf gu bax la moy ni aaji bu fi way indi yalla mën nako faj te dana ko faj di sante serigne mustapha job bu baakha bax ndax gamul nañu tabarakallah Ah, yonent bi géej la goo xamante ni du jeex dangay ngay rekk rek la nga ca man waaye du jeex mukk ah sunu borom tabaraka wa taala nag bam ne qul laa ilaha illa allah wastaghfir li dambika soo waxee laa ilaha illa te jéggulu sa bàkkaar ba bàkkaaree jeex sañ ngaa ñaan waaye ñaan dara du ko taxa nangu lu dul lekk lu lew yonent bi sallallahu wa sallam moo ko wax nee na am na ku taxaw ba bopp ba fëndooñ di ñaan mais yére ba mu teg ci yaramam dafa xaraam la mu lekk xaraam la mu naan xaraam yàpp yaramam bi sax lim ko dundale dafa xaraam nu ko yàlla di nangule li gën a gaaw ci boo ñaanee yàlla nangu ko mooy nga fexe bay lekk lu lew kenn mën lekk lu lew moom li yonent yàlla daawuda alayhi salaam ko tagge daana lekk ñàkku jëm ñu ngi ci jamono joo xam ni nag sénégalais li mu war a fonke nit moom la koy yabe mooy liggéey liggéey xam nga ci lañ war a fonk nit mais sénégalais daf ci yàpp nit du ah moom du xanaa nàngam lay liggéey nàngam rek lay liggéey te méttiitu méttiitu maanaa nga am métier mu ndaw di ca faj sa soxla moo gën nga dem ci sa nawle diis ko sa soxla mu gàntu la nga génn di méttiitu kan maa fi gën a bëgg sëriñ ba yëkkati leen yëkkati leen yëkkati leen yëkkati leen yëkkati leen yëkkati leen mooy xalifatul sayxi wal muxtaar moo si dimba na fi fajal diine ay daana te ñépp la war bu leen ko xiinal te bu leen mbalax ba leen junjungee way leen ko ziyaar ko mbay dumbaay mbay jërë ngeen jëf fonk leen seeni waajur dégg ngeen ko sànq ci hadis bi fonk leen seen diine fonk leen seen réew kenn ku nekk ci yéen ambassadeur la boo xam ni moo représenté Sénégal ci France loo def te méngoowul ak li rew mi bëgg ya xajamal deru Senegal, yo armée la nga yóbbu fa aju wang loo fay doye tas leen yaram yi ci ci anam gu lew loolu laa di dink ci nekk bu subaa ca ngoon da ma ca fekk loolu laa leen di dénk yàlla na yàlla faj aajo yi zaahir ak baatin yàlla na yàlla def tawfiix def tay siir ñaamagul soxna yàlla nañ ko am ñaamagul borom kër yàlla nañ ko am ñiy examen yàlla nañu at mi ñiy wut wërsëg wu ñu terale seen njaboot yàlla na leen ko yàlla may ñi feebar yàlla na leen yàlla saafara ñi bëgg kay ci réew mi yalla na leen ko yalla jox su ko defee dañuy jàng bokk ànd ak yéen jàng fatiha jàng ayatul kursiyu jàng salatul fatiha tëj ñaan gi te wóolu ko nag mu wóor nu ni lii nu ñaan yàlla gannaaw bi nu jaareek moom fi nu jaar ak moom ca tudd ko bàkk ko kañ ko dagaan ko ci guddig lu xadar lu ay bëgg na ko ñaan lu way bëgg té mu dagan nako ñaan yalla du delloo laaj tey ajjuma ji mujj ci wéru koor lo ci ñaan yalla may lako ko laylatul xadri lo ci ñaan yalla may lako kon ben xeer la bu jam ñaari picc ajjuma ji kenn du ko wooraat tay lañu bari japp ni moy laylatul xadar ndax saar wi dafa tuddu baat bi ñetti yoon bu ci nekk di juroom ñenti haraf. 3 fois 9 27 bo jógee ci inna anzalnahu di wàccit bo ñewé ba ci salamun hiya moy ñaar fukki lu baat ak juroom ñaar fofu la ahlul ishaaraat deug ba ni du xadar ñaar fukki ak juroom ñaar la kenn ku nekk ak fam ko japp kon ñu jang fatiha ayatul kursi salatul fatihi tàggoo balonté haq ñaan yalla dundal nu ci l'islam ray nu ci l'iman dekkal nu ci lihsaan bismillah a'uuzu billah اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت واكف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك يا ذا الجلال والاكرام يا رب العالمين اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما واجعل تفرقنا تفرقا معصوما اللهم لا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا مطردا ولا محروما اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا رد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد نسألك بمقاعد العز من عرشك ومنتهى الرحمة من كتابك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 alaykum alaikum julli ñuy sétane comme ni len ko waxé won si début bi rek tay nak dañ fay ñëwone IK News euh, doon len teewal fi ci guddu laylatul xadar bi nga xamné ni nii euh, daayira la fi la euh, moko fi doon def di len sant di leen euh sétane ngeen suñu direct bi direct yi fi def yépp ci page Facebook bi IK News TV page YouTube bi aussi IK News abonné il y a plus de 11000 déjà abonnés Euh, di leen wax nag euh, El Hadj Ndiaye moo si doon jàppale El Hadj Ndiaye IK News aussi euh, Ibra Khady Ndiaye teewal leen fi aussi gis ngeen waxtaan wi daal dara ump leen fi direct boo xam ne ni ëpp na deux heures de temps mën ngeen ko retrouver si page Facebook bu IK News interview yu ñu fi defee tamit si site News mi fi donc di leen jaajëfal di wax liñ lépp luñ fi ñaan rek yàlla na ko nangu si daraja Muhammad sallallahu alayhi di leen wax jërë jëf ba beneen yoon incha allahu rabbi yàlla nañu ko fekkee